moom la ñu bëggoon a ubbee jataay bi mu doon loo xam ne c'est un complément à ce qui sera dit il y aura aussi un document boo xam ne dinañ dinañ leen ko distribuer les journalistes toujours c'est un complément mais pour ne pas se limiter à ces règles standards on a refusé catégoriquement que le capitaine se tienne devant vous pour lire un discours dañ ko ne vous avez toujours été naturel en parlant aux Sénégalais. Vous avez toujours été vous-même en parlant aux Sénégalais. Continuez dans cette lancée. Soyez naturel le maximum possible. Emportez vos imperfections humaines qui vous caractérisent devant les Sénégalais. Parce que réewum xalaat moom dafa war a jeex. Nous devons vivre dans le Sénégal des réalités. dans le Sénégal où un ma un maître de conférence wala un professeur titulaire bu toogee di wane ay imperfection ñu xam ne ça c'est la personne humaine nous devons dépasser sa Sénégal kii la personne bi nga xam ne mooy toog fii lu muy wax waxu kële lay doom bu ko defee moom buy jëf jëfam lay jëf waaye du jëf jëfu ko loolu moo war a jeex Sénégal na président yeeg ministre yeeg ku nekk nañu tegu ci lancé boobu ñu naturel bu ko defee tamit bu ñu commettre erreur dans le cadre de nos activités ñu xam ne c'est la personne humaine qui s'est exprimer loolu la incarné ci loolu la mouvement bi di dox donc nañ ko xamee noonu bu ko defee ngeen baal ñu li nga xam ne xëy na peut-être c'est des imperfections dans notre euh, speech c'est aussi peut-être euh, euh, des répétitions xëy na peut-être on n'avait même pas prévu de prendre la parole depuis bu ñuy préparer point de presse bi on n'avait pas prévu de prendre la parole mais avec euh, la demande du capitaine on était on était obligé donc on a essayé de d'improviser c'est pourquoi il y a il y a ces ces imperfections là donc nous allons passer la parole euh, euh, au capitaine voilà merci de votre attention Ah oui, je ne tiendrai pas le micro Hein. Maintenant, la table. C'est bon, hein? Je ne pourrais pas tenir par contre le micro là. Je salaamaaleykum waaw ah, mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu di vous qui avez vraiment pu nous honorer de votre présence. Yaa ngi may dégg ok. Bien. Tu peux prendre le micro là. Voilà, c'est ça. Jox ma trépied bi. Voilà, jox ma trépied bi. très bien voilà c'est bon loolu bu mu génn bu mu génn bu mu génn bu mu génn al ñu ko. comme ça. kon al ñu benn biir waaw waaw waaw waaw waaw ok naa joxe Tina. Voilà, c'est bon. Je pense que je me fais entendre. Voilà. C'est bon. Je me fais entendre. Hein? Voilà. waaw euh, salaamaaleykum mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen sant euh, yéen journalistes surtout di leen nuyu di leen sant de l'honneur de presse ah c'est un la parole après maître <laughs> maître Faye qui comme il l'a dit l'a si bien dit bu may jël parole je ne du ma def ni ñëpp di def ñëw lire discours ab dem dinaa wax ak yéen naturellement comme il a dit et nous allons échanger par la suite waaw maa ngi leen di di leen sant waaw lu ñu tax a euh, daje tey mooy présenter suñu mouvement national suñu kuréel bu bees bu tudd Union pour un Sénégal juste voilà Union pour un Sénégal juste nag balaa ma siy ñëw. je voudrais un peu ñëwaat ci sama parcours en fait ça ne tourne pas autour de moi ça tourne autour de Sénégalais yoo xam ne dañoo toog waxtaan euh, tënk li tey mais comme je vous le comme je suis la personne morale de l'organisation il est toujours bon de revenir sur les choses et de les contextualiser mooy li may wax souvent rek xam nga si wàllu citoyenneté parce que ça c'est un regroupement citoyen il faut le préciser lu gën a important c'est que la euh, c'est le, le parcours de la personne morale am na koo xam ne peut-être dafa jur fekk papam nekk un politique wala qui est dans la la, la société civile gis loolu mu topp ko parce que ku ne souvent lu papam wala famille am di def c'est ce qu'il fait mais man tey nii mon travail ni ma carrière ne me prédestinait peut-être aujourd'hui à m'adresser aux Sénégalais devant des caméras. Donc il est bon de rappeler et de contextualiser un peu les choses. Voilà. Euh, comme ni ngeen ko xamee man officier de gendarmerie laa woon euh, dugg naa gendarmerie 2012 nekk fa ba 2021 waaw euh, euh, ñu radié ma en 2021 des cadres voilà dans des circonstances yoo xam ne Sénégal yëpp xam nañu. kon jaruñu si ñëwaat mais ce qui est important c'est que après cette radiation moi je suis aussitôt passé à autre chose vous m m'avez jamais entendu me plaindre comme on m'a dit que j'ai fauté je travaille sur la base de loi te man defere naa ay nit sanctionné naa ay nit man j'ai ni en tôle ay nit tëj naa ay nit armée parce que armée boo defee faute dañ lay tëj donc moo tax moi j'ai aussitôt accepté c'était le destin quoi c'est normal il y a des personnes plus indisciplinées que moi dans l'armée, mais qui y sont et qui sont même devenues générales. Donc, il n'y a pas de souci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, aussitôt après, je, je, suis passé à autre chose. Je suis université, je suis Tout ça, c'est. Et aussi, vous m'avez université, je suis au Sénégalais, en fait, parce que je voulais aussi un peu que les gens suivent mon parcours. Je suis un peu Parce que tu n'es pas de tout le monde. Mais il y en ay nit yoo xam ne même si c'est dix personnes ñooñu bëgg nañ xam yow foo jaar pour t'en sortir après faut pas tomber dans l'oubli parce que tout le monde connaît les circonstances dans lesquelles j'étais radié donc aussitôt après je suis parti à l'université comme je vous l'ai dit et d'ailleurs je remercie le docteur Diallo qui m'a beaucoup soutenu et mes camarades aussi avec lesquels j'y étais après ça j'ai après avoir bu ma amee sama lijaasa ba pare sama diplôme de master 2 je me suis inscrit en ma dem ut fu may jàngale bu ma amee fu may jàngale bizarrement à peine arrivé <laughs> j'ai fait trois jours en fait quand je l'ai mis une fois dans mon CV waa ji reetaan quoi mu ne ma jàngale trois jours est-ce def si CV ma ne ko ah mais ah, commencé te balaa ñu lay recruter je pense qu'on examine ton dossier donc boo fa defee vingt quatre heures de votre euh, parcours après loolu voilà bu ñu ma tout le monde le sait en fait je veux pas revenir ñu bañ a gudd Ensuite, j'ai été contacté par le maire de Dakar, M. Barthélémy Diaz, encore une fois, sant au passage. Euh, bu ma ñëwee foofu aussi bu ma commencé aussi c' est un ministre du gouvernement qui sorti pour dire que pour que ma liggéey fa peut-être que le maire euh, si poche am la may fay voilà tout ça bu ma koy raconter en fait c' est pas pour me victimiser en fait c' comme je vous dis c' un parcours c' intéressant que ngeen xam fu ma jaar ba egg ça nous permettra de camper le débat ngeen xam ne c'est pas quelque chose qui a été euh, pensé d'avance qu'il fallait aller dans ce vous savez que nit du am liggéey ba pare caaxaane ko ba ñàkku ko voilà boo demee di liggéey wala di jàngale c'est parce que tu veux y y rester et durer ba pare mun a partager sa expérience voilà léegi après euh, euh cette la là je suis resté quand même mais comme le travail que je faisais est un travail qu'on peut faire à distance parce que conseiller quelqu'un ce n'est pas être présent voilà euh, léegi euh, j'ai un peu souhaité continuer mes études comme on m'a dit que je ne peux enseigner qu'en ayant doctorat xam nga bu la autorité waxee ne pour nga jàngale foog nga am lii en fait tu besoin de te plaindre va chercher ce qu'il t'a demandé reviens c'est ce que j'ai toujours fait moo tax à chaque fois bu ma demee fenn ñu tere ma fa dem damay dem defi lenn après ce après cela ma bëgg a dem ci continuer jàng j'ai déposé un visa mais là aussi sincèrement le trai le traitement qui a été réservé à mon dossier m'a un peu surpris quand même man du ma wax ci lu amul preuve parce que moi j'étais enquêteur un enquêteur il il il c'est-à-dire il qualifie toujours sur la base de preuves palpables mais comme je ne sais pas je n'ai pas de preuve mais sincèrement pour quelqu'un qui a payé des frais de dossier ñu delloo la sa passeport Euh, tu pou te demander si c'était normal, quoi. Est-ce le c'est le même traitement qu'on a réservé à tout le monde Voilà, donc après ça, voilà, j'ai continué mes Je suis parti au village, Madempe, c'est mon village, pour la manavette du Feke et tout sa Parce que j'étais tenu à, un euh, euh, dossier, en fait. Quand j'ai été licencié, à remercier à l'IAM, élection législative, nous avons proposé, mon capitaine, vous déposez, vous êtes député. nous on va te, te soutenir et tout mais man du ma si dara pour régler des comptes wala pour régler non li may def moo koy def day dal sama xel parce que j'étais tenu par mon dossier boo xam ne il n'était pas encore vidé et quand vous êtes tenu loo tax lu tax ñu rajo ma après dix ans de service après tout ce que j'ai subi comme difficulté au cours de ma formation en fait ceux qui sont militaires eux ils savent moi au cours de ma formation j'ai même j'ai mon dossier médical et à l'infirmerie on m'a brisé de doigts sama ñaari doigts yi dañoo dañoo dàmm dañ ko def donc ah, en fait de de choses que bu avons vécu léegi bu ma waxtaanee ak nit ñi ñu wax ma man leen non man je ne veux pas euh, régler les choses comme ça de toute façon man bu ma démonter assemblée nationale je ne règle pas le problème des sénégalais parce que suñu niveau de démocratie eggul foo xam ne un député peut imposer de soi-même c' est vrai que y' de très bons députés am na vraiment ñu si def liggéey bu am solo ay Guy Marius Sagna ay Pape Djibril Fall vraiment dama leen di seetaan te dama leen naw c' est des gens que je respecte beaucoup parce que les choses évoluent quand même waaw. boobu on est on est on est on est on est passé à autre chose man leen non non du ma engagé wu si loo xam ne vraiment juste pour avoir un poste nañu bàyyi dossier bi boo xam ne moo tax tey ñu rajo ma ba ñu o parce que c'est aussi une question d'honneur man lépp li may def comme ni ma lay li ma sama xool ak yàlla laa si jiital voilà et dans le traitement du dossier aussi ma j'ai fait mon travail voilà je suis pas entré dans les détails kenn gisuma si ay affaires yu ñàkk fay